I'm gonna go to the

Chineke I'm Thank you. lolu dafa rafet motax xamna ko digiri bu digg riche nii Pape mel ko al té li kat c'est une première muy initiative bo xamné ñom ñi ñoko am dekk bambay dajalo wo dom bambay wo autorité bambay ak ndawi bambay ngir sante Serigne Saliou lii c'est initiative bu nga xam ne si à ñu ciy sant bu baax nag ndax ñun lii rek lañ am kilifa yi seen teewaay rafet na xam naa du ñàkk Pape Mboup bala nga jëlaat ndax cant gi tàmbaleegul daf cee am ñoo xam ne dañ ne dañoo bëgg a dellu te yaakaar naa daa am lu ñu seq ak ñi nga xam ne ñoo woote kon Daouda Ndoye mel ni monsieur Abdou Diop dañ lay jox rajo bi waaw bul sori ah waaw waaw du ko jar cinq minutes rek wala du ko mat nga tàmbaliwaat tëj ka dem seen bouse maa ngi ko yónnee d'accord dégg naa la ah soxna Ami. ange billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim salaatu wasalaam ala rasulillah jërëjëfe Serigne Touba xaadimal Mustafa jërëjëfe Serigne Touba xaadimal Mustafa Cheikh Moudou Mountakha Mbacké yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wër Serigne Cheikh Jëmbu Fall yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wër ñu ñaanal njabootu Serigne Touba gi fi nekk ñu yagg fi lool te and ak wër ba naali naal seen maam yépp mu sotti te ñu ko ak ñoom maa ngi santaat yàlla bu baax di julli ci sang-sang yi seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam di gërëm sama ñaari waajur di sant ak nuyu ak ki nga xam ne nii mooy sunu kilifa yebal ñu fii mi l'honorable député soxna Aïssatou Mbodj ñong koy sante bu baax di ko gërëm nga xam ne ñu teew mom lañ fi téwal banay bobu nak dañ koy jaalé sunu maam ji nga xam ni mo fi bayé ko mi soxna Aminata sar ñu koy ñaanal yalla yalla xaré ko aljana yi gëna kawé té njabor gi fi dess yalla tek ci ñom loxo sam leen ar leen di nuyu honorable député mi nga xamné ni mom la andal muy le secrétaire municipal Racine Ba di nuyu sama nijaay Mouhamadou Mokhtar Niass ma ngi koy nuyu bu baax di jox yegu wayam di nuyu délégation bi nga xamné ni andana ma ak mom ñu ngi and ak euh, Badara Gaye di conseiller municipal and ak monsieur Daoud Ndoy conseiller municipal and ak euh, Abdou Fatah Dieng ànd ak Ibrahima Bah anda ak euh, Cheikh fay ànd ak madame Anda ànd ak sunu Jigen mi soxna Kiné ndjay ñu koy ñaanal bu baax soxna Kiné ñu ngi lay nuyu di la jox sa wàccuwaay ginaaw bañ santé ñoonu ñu ngi sant association nopp sa jëkkër bi nga xam ni association bu am solo la ndax jappo naa ne moom li gëna neex mom euh, sëñ boobu da koy wax pap mi association nopp sa jëkkër naa tur dara dàqu ah waaw tubarkàlla moom kon ñu ngi leen di sant bu baax ci initiative bu rafet bi nga xam kan ne nii am nañ ko di leen ñaanal yàlla dafa leen tawfeex jubal leen gën leen a jubale ak seeni borom kër gën leen a nobale ak seeni borom kër yàlla may leen ci njaboot gu barkeel ñu leen di sant bu baax a baax a baax a baax di leen sant di leen ñaanal yàlla dafa leen tawfeex ah di sant monsieur Racine Ba mu nek le secrétaire municipal de Bambey mu ñëw bàyyi yépam and ak ñun ci guddigi pour jammal guddigi di nuyu tamit sama nijaay pap an mi nga xam ne gis Racine Ba gis ko fa ñom ñaar ay cheikh lañu kenn ki may tak ndeeru moroomam bo gis rek gis nga keneen ki ci dess kon duñu guddal dañuy jox ki nga xam ni moy suñu kilifa ci bi mi honorable député monsieur Racine Ba mi xam ne nii su teewee fii teewal na suñu parti muy ànd saxal liggéey nga xam ne parti la boo xam ne nii parti bu am solo la ci réew mi kenn ku ci nekk xam nga soxna ay Aïda Mbodj taxawaay bi nga xam ne nii taxaw na ko ci réew mi waxuma Bambey mais taxaw na ko ci réew mi taxal ko askan wi pour lépp loo nga xam ne nii mooy jëmale askan wi kanam mu ngi ci suba ngoon jot kon nag pour bañ a guddal damay jox honorable député Racine mu àggale discours bi yees yeesalaat mbooloo mi gën leen a euh, ñaaxaat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 mbokki Bambey mbokki waxal jàmm association nopp sa jëkkër ñoo ngi leen di nuyu yéen ñëpp kenn ku ci nekk sa tur ak sa sant di bég lool ci bés bii nga xamante ne bii amal ngeen ko tudde ko Abdou Diop mii nga xam ne suñu mbokk la suñu xarit la suñu wóllëre la ñu bokk fu ñuy taataane muy kër soxna Aysatu Mbooj moy suñu bàjjen di suñu yaay di suñu tante di suñu leader politique nàmpatal ñu ci def ba ñu aksi fi ñu ci aksi tayiwul benn yoon tokkiwul benn yoon mu ngi suñu kanam mu ngi suñu ginnaaw mu ngi suñu ndeyjoor moo ngi suñu càmmoñ yàlla na ko fi te yërëm sunu mam joju nga xamne mo ñu jitu muy saxna am Sarr Abdou sa bes ni rek la mësa la mëna a mel da nga am lante ak ñepp da nga rafetal sa digënté ak ñepp dañuy wax ñu né xalel bu sété ya loxo mëna bokk ki mag sha allah fa nga né am nga fa cër bu reuy te dara joxula ko loolu sa jëmm ji ak sa taxawaay bi sa yar bi ak sa tegg ji soo mënee sa bés jot ñii ñëpp di ay kilifa kenn ku ci nekk bàyyi lalam gedd nelawam gedd soxnaam kii bàyyi borom këram ñëw toog fii ci sa sa jëmm ji moo ko waral noo leen def moo ko waral ndax olof dafay wax ne diw day xaw nu ma ko def nu ma koy def ngir namu ma def ni nga def doomu aadama yi motax nga jaral ñu li ñuy sédel wa waxal jàmm di sédel association nopp sa jëkkër di sédel mbokki Abdou Diop ne as gor pire ngi ni jàmbaar d'origine moo ngi ni koo xamante ne bi boolewul dara ki wax ngi ni sañ naa delluwaat ndax xam naa ne tey jii bu fekkonte ne fii ma koy waxee fi la sama bakkan rote suñ ma ko laajee danaa ci mën a delluwaat Abdou yaa xam li nga bëgg yàlla na la ko yàlla defal yàlla na yàlla saxal la ci sa njaboot gën la déggale ak say wéyjur waaye gën la déggale ak sa soxna yii nga xamante ne bii jël nañ bés bi dubbee la ñun nag dañ ci bég eh, di wax ne li ñu nekk day politique la waye mën nañ ci jaamu yalla ndax politique bi leneen lu defal sa askan jappalante ak sa askan jëmele sa réew kaaram loolu lañu namp ci soxna dem Mbodj loolu lañuy doxé loolu lañuy waxé xamuñu leneen itam ba taxna kon ñu ngi jëm ci bés yo xamante bi dañuy xëccoo ñu wara ndombo tanku ñi nga xam ne yor gox goxani muy ngeen mës a am taxaway bu rafet ci waru soxna Aïda Mbodj bu ñuy wax toujours ci ngono election bu ñe wiw minan Aïda Mbodj toujours wa waxal jam bokku nañ ci ñu naan jëk ne wiw ci kon na ngeen fexe da bes bobu insha allah buñ ci waté ngeen delo bu ci boy boy. ñu ngi ci jamono bo xamne ne kenn ku nekk ngi jëk di fëgg ndëndam waaye kenn ku ci nekk xam kenn ku ci nekk xam nga la nga def ci saw askan ba bés boo taxawee ci seen wet ne leen delloo leen ma wala jox leen ma ma leen ñu mën la kaa jox soxna Aïda Mbodj nag moo xam guddi na moo xam bëccëg na moo xam naaj na moo xam taw na moo xam yooyaa ngi màtte moo xam lu mu mën di dool ànd na ko ak waa Bambey bokk na ko ak waa Bambey kon jàpp naa ne warees na ko mën a gën a dooleel gën ko joxaat li nga xamante ne bii moom moo newoon ci ay loxoom muy mairie Bambey muy conseil départemental de Bambey bu ko defee fa mu am nam ma yóbbu Bambey yàlla suñu borom yóbbale ko fa waaye itam yàlla may ko ay ndam ci élection présidentielle yi ciy topp parce que li ñu bëgg ci moom tey de mooy présidence de la république mu toog fa bu boowaa de Bambey duñ ko rëcc parce que mag ñu nee nañ kuy raam di la yóbbu wallahi bu jógee boot la na ànd ak kon yal na ko yàlla taxaw yal na ko yàlla jàppale ba fi nga xamante ne foofu lañ bëgg mu àgg fa yàlla àggale ko fa noo ngi santaat bu baax a baax a baax di gërëmaat bu baax a baax a baax lii nag enveloppe boo xam ne euh, Abdou ak ñi nga xam ne ñoo ànd ak moom ci wàllu euh, politique bi ñoom ñoo ko jox association nopp sa jëkkër ana présidente bi association nopp sa jëkkër kaay leen nangu teranga bi sen jëkkër ju ñaawul ji nob leen lool mo leen jappalé fukki junne ak ñeent yi ci sen bës bi Thank you. Iya, Wangian yal nañu defal ngeen sama xarit sëñ Aliou borom bambay ndaysan nek ku sori ci man nek ku bax kuma bëgg lool bëgg señ pam bu lool di jappalé ah mom fokk ma tuddu ko tayit fokk ma jox ko kàddu ci bëss bi mu yëkëti iya ci ndax sunu ñaari jëm yi ki ko lënkale moy señ ali Ngom légui ni rek ñu maa ngi moom ñoo ànda ci soxna Aida ak Modou Galas Mbaye wax deug yalla kérok bi gànn mesere di ñëw fi sama kër di ma sét si mom mi la andal anda gan ba fi sama kër ñew seet si ma kon nak sëñ ali ñu ngi lay sant bu baax di gëreum dila jox cadeau gi nga yëkëti ko am lo ci sanni ta def ay ñaan <laughs> ay borom Bambey barkeb Serigne salim mbake barkeb Serigne salim ma ngi siar bokki talibé yu baax di siaré man nak dama dégg tubab soxna yi taxawal li damay bañ wax association di djoum prononciation balaa dul mën soxna yi taxawul lii yàlla seede na ne jigéen ñu bari war nañ leen ci roy ndax bu leen neexoon ngeen woo Baye Serigne te Baye Serigne la jël na trop trop waaw billahi te bu leen woo neexoon ngeen woo ko waaye lii ngeen lii ngeen def di ngeen ci amee yàlla amee ci yoon bi noppi amee ci sëriñ bi ndax Serigne Saliou de nim ñu def ak lim ñu defal dafa yelloon ci ñëpp ñu koy way di ko bàkk di ko feccal di ko kañ. ndax kenn ku ci ne fekk na la ci ruq dafa la lool ku dul moo mënalu la ko woon am na benn woy pap bu boo xam ne lu mel noonu def may daaneel bi mu naan mooy ki jiitu ci sunu jëm yi kenn fekku ko ci sunu soxla walaay woy boobu daf may daaneel yàlla na ngeen am jàmm yal na seen diggante seen borom kër yi sax faw te te te ngeen am ci ay milliardaires yu bari te te yàlla bu dara wuute ci seen ginaaw yàlla na ngeen fekkee lépp lépp ci barkeb Serigne Touba. maa ngi leen koy ñaanal bu baax di siyaare sëñ Modou Ndiaye mi nga xam ne dinaa koy wax lu bari ne ko ku participer ci développement wu dëkk bi nga waaw te man fi ne nii la sëñ Bécce waxoon ne seen TV suñu TV waaye man Bambey TV sama TV waaw c'est sim te te te man damaa ñemee engagement waaw sëñ Modou mi lu ma mës xew le sëñ Abdoulahi day déplacé wu ba may ngénte rek suba tudd gi fi la ko fekk ba guddi barkeb sëñ Touba te su noppee sama kër sax su ma yëkkati paas di jox day lank dama yow lolou boole ñew Serigne Touba rek la la jappé sa ma ngi ñaan ci Serigne Touba ni futur Médias mi mel yalla na nga ko gatchel té rafet na ci ndort ndax am nga engagement bi ak détermination bi ak gëm-gëm bi té adina kat lu nit dug adina té réussir ci gëmul won bopam bam ci dug barké Serigne Touba Ndour mi bi muy woy Live TV bobu amu sax radio ay gis nga té amna sen eh, TFM mi ngong Serigne Abdoulahi mi nak day ko xamné sama xarit la te te man dëkk bi yàlla seere na ne yombul ma ne nit sama xarit la yombul te ñi ma seqal dëkk bi ñëpp xam nañ ne xaritoog demalanteeg dikkalanteeg fekkalanteeg naanante ataay bokk sequma kooku yàlla bi ndax yàlla seere na réew mi toll na foo xam ne ku la gën a bari ay dug dugg ki gën gën gën problème rek parce que nit ñi dañoo foo li ñu lay won ak la ñuy téye c'est diamétralement opposé waaye sëñ Abdoulahi mii de nii biiram nii biteem gi mel barke Cheikhul Khadim Mbacké noonu la biir gi mel li li li ku baax ki wax sëñ Racine bi nga xamni ne di dégg turam yoo suñu rencontrer nak waye li nga wax rek ay deug nit ku yiw a nit ku baax ku xam nga bu bare jom te xol ba lab day neex a àndal sëñ Abdoulahi ku na la teral na la jëriñ na la barkeb te te man seigne touba wutu na ñep ci sama jëm dootuma wax ci nit lu gëmul jombalé na ko sama bop mom wóor na ko ne dama tawat dama jaga di jamono yi may wax ak yow ndax ci ngoon ñoo won kër ay demboj te bañ ñu ca jógee man hôpital laa dem naani garab mais wallahi bu ma doon raam sax dinaa ñëw ci bes bi ndax bés bi durant mu jàpp ko ñoo ko an maag moom maa ngi woon Dakar non seulement mais dama toog benn journée bu ñu déggantewul téléphone muy nit ku yiw di ku baax ni mu wax mooy dëgg sëñ Gana na ma ci jëmam ba bu ma koo téléphoné woon léegi ne ko nañ bokk dëkki su ba mu bokk seeg man dëkki loolu moom yàlla defal na ma ko ci moom ba ma ko waxee laa ko de dinaa la ko andil ba sa biir kër ndax xam naa moom fi mu teg sëñ Tuubaa te ba mu ñëwit ganna ba mu ñibé moma wo téléphone ni ma man dé signal ki nga ma yóbbu non seulement def ma danel mané ko ah bon mu ma ben temps bi def pour dajalé mbolo dafa gat parce que lu durant une heure de temps wala deux heures de temps nga dajale ci fa mbolo mi ak nak xam nga mbolo nit mëna dajalé dajale nit te kenn du ci am qualité aw fi mu mën dajale fukki nit rek ñu wecc juné nit mbolo qualité da ca baax waye ay saba sugum nga yu jibul fenn ku leen dajalé grawul mom <laughs> <laughs> ay ñaw ña nga dajale gone du leen dajale ci réew mi ndax man mii naa mbooloo ndax ci mbir mbooloo bi laa ne waaye ba noppi nga nga bëgg sëñ tubaa lool maa ngi yelwaan sëñ tubaa mii nga xam ne moo nu boole yal na say ndam sax te yokku nit ku yiw nga nit ku baax nga sëñ paam mbub olof yi dañuy lebu naan ab ab ab lu wax ci bay rek dañ naan derba wala ndawal ga la sama jarbaat la ba noppi sama rakk la déggal ma trop suñ pap du def dara ci àddina lu dul diisoo a ceeg man ba ci takkub soxnaam ak ceetam ak léppam maam lu muy dugg ci kaw suuf te néew ma signal yu nangam laaj ma ci afi te lu ma ko ne defal nangam lu ci teg baat moom nag noonu lañ mën a demee ndax yaayam ji ko jur moo ko ngab ci loxo addil ma ko ba sama biir kër mu ngi nii toog daal di ma ne suñ pap mi dénk naa la ko te bëgg naa ngi ànd te waaye mu neexaan na lool ndax ku bari kersa la ku yiw la ku dal la te ku tabe la maa ngi maa ngi yelwaan Sëñ Tuubaa fu ñu doon dégg kat yewoon yàlla nga leen gàcceel ci barkeb sintera te rafet ci njort de ndax man fi du manda kuy tu ginnaaw ndax man damaa doon bërëmu fit te doonu jàmbaar te miin réew mi ah du manda ànd ak kur kur dem mom duma ma ak yow dara ndax fi ne juróom-ñeenti ndool moom ku leen bëgg dimli dimbali fukkee leen <laughs> motax man duma and ak n'importe quel seigne abdullah yalla nga jam yalla nga mucc yalla nga wër yalla say may sax yalla sa ndam sax la ay dembo wax léegi defa moi doyna ab séré limu ñëk séré ci yow dalena yow nit ku gore nga te ngor mooy secret bi dëgg nag Cheikh Ibra Fall dane woon li ngeen bëgg dara jafewu ci li jafe mooy ngor te ngor as gor da nga koy am te fi yàlla da caa fiir sax ba doo dégg mukk ñu ne la diw ab gor la xanaa xam ne gore ba jeexee la rek a ko def kooku am yàlla la compal ci jëmmam moo tax da ngay ñu ne la diw as gor la as gor la tuuti la ci am ngor yàlla rek a ko def waaye nit ku gore nga ku baax nga sëñ Racine ñoo ngi lay siyaare ak sunu bokk yu baax yi soxna Astu Njaay sama rakk bi moom sama rakk la ndax bàyyam sama xarit la bay Mor bayam day nit ku bax dama koy wax lu bari ne ko yow fierté Bambey nga ndax borom xam-xam la ah participer ci développement bu bay Mor nit ku bax la jeuf seigne Modou amna mbekté ma ngi jéggelu ci guddal gi sama xol a te jimna mak te sama yaram neexatul waaw. kontaan naa ci yow sëñ Abdou kàddu yi rafet na monsieur Ba bég nañ monsieur Niass kontaan nañ ci seen teewaay Ibrahima Ndoye sama xarit yow maa ngi ñëw ci yow gay nañ ci sunu ay ca salaamaaleykum man nag damaa mënta wax ci mbooloo mais xam nga li ngeen wax ci Abdou mom buñ ci waxul ñun ñi bokkam day nilu leneen xam nga ñu ngi leen di sant di leen gërëm di rafetlu teewaay bi di sant soxna yi nga xam ne ñoo organiser lii ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax a baax Abdou nag li ngeen di wax ci moom yaakaar naa ñun leen xam ci moom moo ëpp loolu parce que buñ ne diw baax na ñu ne ndax bokk yaa ko wax xam nga moom bu waa Bambey seede Abdou tey bokkam seede wuñu ko bu ngeen ñibbee sax war ngeen na seenam xel war naa ñaaw mais kii sama jarbaat la ñoo bokk lépp maag yaayam ñoo bokk lépp muy nit ku baax di nit ku gore di nit ku yiw di nit ku xam àdduna ku mën nitamitam xam nga nit man nga xam aduna te do man sa nit mais Abdou dafa man nitam Abdou yal na ko yàlla àggale fi a dem su fa àggee baabaam bi yëpp dinañ jëriñu ci mom wax nit ku bax la wax deug yalla ñu ngi leen di sante di leen gëreum ah, prim li c'est une première yal nañ ko def yalla nañ ko def lu bëree bëree bëri bu ñu ba ci kanam dina dina gëna dina gëna law sant nañ leen gërëm leen bu baax baax yeen ñi nga xamne ne daal yéen a nekk ak mom di liggéey yeen a ak mom parti yeen a bokk ak mom lepp ñu ngi ci seen kanam ñu ngi ci seen ginnaw ñi ñi day kliba jërë ngeen jëf. jëf sëñ Cheikh na ma lay Cheikh yow da ngay xaar ah yaa sa délégation ci ayca ñëwal jëlaat. ah yeen wa association seen siège da ngeen koy jege si nii xëcc leen siège yi ba Mbuur waaw ca soxna mi fekk leen chaise yi fekk avancé les chaises waaw ndax fii kat waaw ay ca ñëw waaw parce que ah gars kontaan nañ gars yi merci beaucoup encore une fois waaw waaw Asou jege si leen fii si kanam ndax moom moo fi teewal suñu yaay Aïda Kouyaté wala suñu bu baax boobu nga xam ne yàgg nañu jàppale taxawu nañu fu nekk kon yaag sa délégation ñoom day nogay ah waaw ak waaw ay Fidel Baye Mor Seck yóbbante na may kàddu kan ci yéen ndax kat ku ne xam ne dëkkandoo moom jàmm rek ci gën tax na Baye Mor nee na moo ngi à travers moom ay kàddoom moo ngi waxal mbokki dëkkandoo yëpp di wax rek ni jàmm nga am ak ñëpp teraanga nga si nga sëkk ak ñëpp nee na ngi lay ñaanal nga dund lu bari lool te mu ànd ak wér ci barkeb Serigne sant nañ la gërëm nañ la ndax lu ñu xewle bu ñu koy soo gis te it seen soxla boo ko yëgee da daan ci def la nga man ngir jëmmi Serigne Touba Baye Mor sant na la gërëm na la ak dëkk yëpp jërë ngeen jëf bal la loo ma deseel sama sang ba man ma deseel Serigne Sadou loo ma deseel

Yeah.